asalaamaaleykum wa rahmatullah ne asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi am kontaan ne ñu ngi xam ñu ngi am kontanta lool ci bés bi di wax alhamdulilah di wax alhamdulilahi rabil alamina yàlla mi ñu fi dajale woon daaw bu ñu fi dajalee ren moom bu ñu fi dajalee ren moom la neex xam ngeen. am na ñu jiitu. am na ñu jiitu. te bokkoon nañu jotaay bii daaw. te bokkoon nañoo ñoom jotaay bii daaw. te jiitu nañ. te jiitu nañ. yàlla yàlla jéggal leen. yàlla yàlla jéggal leen. te wane leen ak Mawlana te wane leen ak Mawlana Cheikh Ibrahim. radiyallahu anhu. ñi nga xam ne ñoo bokk jotaay bii. mi nga xam ne ñoo bokk jotaay bii te ñaanal leen loon daaw te ñaanaloon leen daaw ñu ngi yëg ci ñoom ak tane ngir yëg ci ñoom ma ñu ngi yëg ci ñoom ak tane ñu ngi yëg ci ñoom ak tane leen di dellu ñaanal ñu ngi leen di dellu ñaanal ñoom ñooñu tawat waxtu wi déwén waxtu wi déwén ñu mën a bokk ñun jotaay bi ñu mën a ñëw bokk ak ñun jotaay bii ngir bëgg bàyyi ngir bëgg Baay radiyallahu anhu ak lëggéeyal Baay. ak lëggéeyal Baay. yal na yàlla def loolu. yal na yàlla suñ mbokk Baaba Lamin. na suñ mbokk Baaba Lamin. di mag. di magam. suñ jërbaat imaam Cheikh Tidiane Cissé. na jarbaatam imaam Cheikh Tidiane Seydi Ali Cissé. ñoom ñëpp yal na yàlla saafara leen ci xanama wér. ñoom ñooñu ñëpp. yal na yàlla saafara leen ci xanama wér. nga xam ne nag mooy suñ lépp tey. ki nga xam ne ni mooy suñu lépp tey. te sañoon dañuy toog rek di ko déglu. te buñ sañoon dañuy toog rek di ko déglu. ndax moo fi wutu Cheikh Ibrahima Niass. ndax moo fi wutu. Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu teyit moom la te fekk moom la. teyit moom la te fekk dëgg-dëgg moom la. ñu ngi wax ci làmmiñu taalibe yi ne. nañ ñu ngi wax ci làmmiñu taalibe yi ne. maa ngi wax ci làmmiñu taalibe yi ne mu ngi wax ci làmmiñu taalibe yi yépp mboolem muqaddam yi ci làmmiñu mboolem muqaddam yi ak ci teew ku teewut ku ci teew ak ku ci teewut sëriñ bi maa ngi lay wax ne ñëpp bëgg nañ la sëriñ bi bay bay maa ngi ne mu ngi lay wax ne taalibe yépp bëgg nañ la jullit yépp bëgg nañ la ñëpp yow la ñuy na ñëpp yow la ñuy déglu fukki weer ak ñaar ku ko ne ci nit ne fukki weer ak ñaar ku ko ne ci nit ñu say bokki taalibe ñëw ci say mbokki taalibe lu ñu ne xam nga ko lu ñu ne xam nga ko waaye mbëggeel gi amul benn sikk waaye mbëggeel gi amul benn sikk yow rek la ñuy déglu yow rek la ñuy déglu bëgg nga dañu sant ñuy def rek bëgg nga dañu sant rek ñuy def te lii wane na ko te lii wane na ko de mel ni tool tay bi ci ñun mel ni mu ngi mel ni tool ak tay ba ci ñun ñu ngi yàkkamti xaat sax mu ubbi waat ñu ngi yàkkamti sax mu ubbi waat ba mu sotteeg jàmm ba mu sëqee jàmm. ba leneen taxawaat. ba leneen taxawaat. loolu rek lañ bëgg. loolu rek lañ bëgg. fii nag ci Medina Baye. fii nag ci Medina Baye gii. pay bii. pay bii. ñaari yëf rek moo fi indi ni tey. ñaari yëf rek yàlla. xeeme mi yàlla ñëw. ut ut si fi yàlla. ut si fi yàlla. ak si. wala ay xel indi la fi rek. wala. ay xel. ay xel andi la fi. jaaxle xamoo nooy def. jaaxle ak foo jublu. nga daw. nga daw. ñëw fii Medina. ñëw fii Medina. lépp lu fi ñu indi yàlla dana ko faj. lépp lu fi ñu indi yàlla dana ko faj. ñu ngi ñaan suñu borom nag. ñu ngi ñaan suñu borom nag. bés bii. bés bii tey. yàlla nangul. yal ko yàlla nangul yaara bi. taalibe yi. taalibe seen bëggeel. seen bëggeel. lu xam solo la. lu xam solo la. ndax. ndax. soxluñu dara. soxlawuñ dara. soxlawuñ xaalis soxlawuñ xiila. soxlawuñ xaalis soxlawuñ xiila. bu bàyyi ko ci ñoom. bu bàyyeekoo ci ñoom. yow dong la ñuy déglu. yow dong la ñuy déglu. sa xaalaa ñu neex. sa xaalaa ñu neex. sa ñu neex. sa xiilaa ñu neex. lépp loo def neex nañu. lépp loo def neex nañu. wallaahi ngir bëgg El Hadj Ibrahima. wallaahi ngir bëgg El Hadj Ibrahima Niass radiyallaahu anhu. ñëpp bàyyi lañ bëgg. ñun ñëpp bàyyi lañ bëgg. mbëggeel googu nag. mbëggeel googu nag. ci gàttal. ci gàttal. tey li ñu fi indi. tey li ñu fi andi. mu wax la ko. mu wax la ko. ñetti yëf dong la. ñetti yëf dong la. nga nanguñu suñu taalibe. nga nanguñu suñu taalibe. taggal ñu bàyyi ba suñu xol sedd. taggal ñu bàyyi ba suñu xol sedd. nga ñaanal ñu dellu suñu kër yi. nga ñaanal ñu ku nekk delluwaat fa nga bàyyeekoo ci sa kër. salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatulah.